victoire bu mat sëkk noonu laa ko amee gënal ci seen nataal parce que balaa may xam sax fi ngay soor seen nataal laa njëkk a ci fi ngay xam ne sama yaay fii la doon liggéey boobu centre d'expansion rurale la tuddoon CR fii ci kaw tali bi ñu amoon kër fii ci seen kotaan daanaka dëkk nañ fi juróom benn at man fii laa bëggee nekkoon ci seen kotaan bi fii laa bëggee nekkoon kon fii fii sama dëkk la su ma nee sama dëkk la nag c'est pas des propos politiques mooy dafa am boo xam boo ko jaaree day bàyyi souvenir ci yow le reste de ta vie man damay fàttali ne fii ngoon daal di dugg fii ci gentilaa di jaar di dem booru kip kip bi fii daf ma marqué. moo tax su ma ñëwee sëñ bi su ma saa chez moi ba tax nag ba tax nag boo ma ñu sëñ looloo tax sax ñu ñuy sànni xam parce que bëri na ay leader yoo xam ne fii la ñu juddoo yoroo fi màggee fi far ci beneen boor te ñun ñu fexe ba am majorité fii ci seen gouvernement kon bokk ci sëñ bi day méngoo

wax na ko depuis présidentielle 2019 waaye élection locale bi département bi yëpp dañoo teg ci yeneen mairie waaye comme dañoo nekkoon ci coalition jamono jooju maire yooyu am na ci ñoo xam ne ci beneen parti coalition lañ bokkoon donc benn maire Pastef bi muy seen maire Aliou Pouy nii kii lañ ko ci seen côté. dem déggoo ko ci élection législative waaye ñëwaat ci élection présidentielle yokk plus de dix points ci moyenne nationale bi. kon loolu li muy wane mooy sébi ci projet Pastef sébi actionnaire majoritaire la ci bokk. moo tax am na yenn yu ko biir am na yenn yu moom monsieur le maire nañu xam ne loolu jarul yàkkamti mënuñoo fàtte sebi ci wàllu programme de développement parce que man xam naa potentiel bi suñu ko tàmm mais mënuñu fàtte sebi ci wàllu taxawaayam ci biir xeex bi ba ñuy jël seen doole ak seen xalaat. jox ko président Diomaye pour ñu mën a tabax réew mi sëñ bi leen ci parti bu soobee yàlla. comme le 19 comme le 17 le 17 sëñ bi daal fawoon na woon. yéen da ngeen lancé da ngeen lancé challenge xam ne département bi yëpp la.

Nous avons les 10 premiers départements du Sénégal, amenons une récompense spéciale. Nous avons les 20 premiers communes du Sénégal, amenons une récompense spéciale. Comme nous avons les carte électronique, petit dimanche, Inch'Allah, nous avons des téléphones. Nous avons des problèmes de poste. Nous avons les élections législatives, nous avons sont élections présidentielles. suñu tolloon dayoo gëm naa ne bi sax moo ëpp kon jël leen massivement ngeen voté pour une victoire éclatante pour ñu am majorité à l'Assemblée la ca des ci vision 2050 bi seen maire bi nga xam ne duur na ko xam ne lan moo ci suñu yéene ci pôle bi yëpp rawatina ak fii ci Sébikotane kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah kii moom